jërë ngeen jëf internetu buzz seen yi ñi safoo di seetaan suñu chaîne bi da leen ak jàmm si seen actu du jour ñu door seen actu du jour ak kii di Serigne Mara Niass ak kii di Cheikh Ahmed Cissé ñoom ñaar ñi nga xamante ne nii rek waay la ñu woon jënd nañ ku si nekk di yekk musiba ak gannaaw ba nga xamante ne nii rek kii di Serigne Mara Niass daal di ne jënd di wili pande kii nga xamante ne nii rek moo di Cheikh Ahmed Cissé ca naka noonu rek kii di Cheikh Ahmed Cissé xaarul lu yàgg dara daal di jënd daal di tamit yàq lu mel ni nga xamee rek kii di Serigne Mara gannaaw ba nga xamante ne nii rek def na ay révélation ne kii nii di euh, Mara Niass ku ñàkk kóllëre la ndax rek da nga koy defaral dara waaye rek du la gërëm euh, teg si tamit ma nga koy dem bay wax ni rek dafay euh, tëddee ay jigéen moom mi di Serigne Mara Niass Cheikh Ahmed Cissé moo yëkkati kàddu yooyee daal di koy teg ci kii di Serigne Mara Niass gannaaw ba nga xamante rek ñu ngi fi doon wuyoo ay waay waaye jamono ji rek ku nga yekk sa morom lépp loo xamal sa morom rek mi ko koy wax dañuy wax kii di Nabou Dash gannaaw ba nga xamante ne nii rek moo fi génnoon di yàq musiba ak mbelengaan kii di jëkkëram ak ñaareel ak awa jamono ji rek kii di Nabou Dash génn na daal di jéggalu jëkkëram bii di monsieur Bergan ak awa ak ñaareel ndax rek nee na dañu ko atteindre mystiquement maanaam lépp loo xamante ne nii rek mi ngi ko doon wax nekkul tayeef maanaam rek dañu ko mystiquement loolee taxoon rek mu doon yëkkati ah, kàddu yooyee rek nee na xanaa dinañu ko jéggal ndax rek jéggalu na jëkkëram bi ba pare di jéggalu aw ak ñaareel moom it di Nabou Dash gannaaw ay jàmm jamono ji rek jiboo na ak jëkkëram bi di monsieur Bergane gannaaw ba nga xamante ne nii rek yekk na ko fi euh, lu ne te loolee rek nee na dara waralu ko lu dul mystique bi nga xamante ne nii rek moom la ñu ko defoon waaye rek bu nekkoon moom ak moom rek du mës a euh, yëkkati euh, kàddu yooyu ndax rek boobu boppam dafa dem waaye rek ma ngay jéggalu bu baax a baax jëkkëram ji nii di monsieur Bergane ak ñaari jabaram yooyee di awa ak ñaare ci Pape Djibril Fall nekk député serviteur moom i rek daal dina yëkkati ay kàddu teg ko ci comédiens yi ca naka noonu rek la mu wax moo di comédiens yi vie bi nga xamante ne ni rek moom la ñuy wone vie boobee nekkul ndax rek vie bu si suuf duñu ko wone ndax rek comédiens yi yenn saa yi dañuy doon sama waay ma yëkkati cinq mille francs daal di leen koy wari teg si tamit am na ñoo xam ne dañuy am benn doom ca la ñuy yem wala sax ñu am doom moom feneen euh, daal di ko fay euh, bàyyi loole rek nag mu metti yenn si euh, comédiens yi ba tax sax daal di nañuy jënn daal di si addu di wax ne rek Pape Djibril Fall nit balaa moo wax de xool li muy wax ndax rek li nga def nii du yoon ndax rek comédiens yi am na si ñoo xam ne am nañu seen métier seen seen métier boobu la ñuy suturloo waaye rek loolu mu mel ni rek metti na leen gannaaw ba nga xamante ne nii rek député bi di Pape Djibril Fall yëkkati na kaddu yooyee teg ko ci ah, comédien yi fii nii ci eh, Sénégal di gannaaw ba nga xamante ne nii rek di Wally Balago sek daal dina yëkkati ab son bu yes rek daal di koy ah, jaglel eh, soxnaam si di soxna dara gannaaw ba nga xamante ne nii rek chaque jour ma ngay ah, jënn di eh, ferderiwaat amour bi nga xamante ne nii rek am na ko si jabaram ji di soxna Aidara moom mi rek di Wally Balago Seck soirée privée ba mu doon def ak waa Ramdan ci foofee rek la génnee son bi euh, daal di koy euh, jagleel soxnaam si di euh, soxna ba nga xamante ne nii rek dañu koy jiiñ ay takk suuf wala leneen leneen waaye rek saay bu ñu xëyee mi ngi firndeel amour bi nga xamante ne nii rek am na ko ci jabaram ji di soxna Aidara nekk ku ñu ràññee loolu fii ci Sénégal avant concert bi nga xamante ne rek rek war na ko amal ci novembre bii nii rek foofee ca Cices jënd na son jagleel ko jabaram ji di Soxna Aydara dañuy wax kii di Maty Trois Pommes nekk benn activiste bu ñu ràññee lool fi ni ci Sénégal daal dina yëkkati plainte daal di koy jagleel doomu Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi di wuyoo ci turu jabar rek la ko jagleel gannaaw ba nga xamante ne nii rek doomu Fouta Tampi bi rek yëkkati na ay révélation daal di koy tekk ci Maty Trois Pommes Euh, loole rek daal di koy metti ndax rek nee na révélation yee mu def ci kawam nekkul loo xamante ne nii rek dëgg la euh, te moom mi rek di Maty Trois Pommes nee na ay révélation yoo xamante ne nii rek war na ko def bala affaire yi di ëpp euh, loxo waaye rek nee na procureur ba su pare rek dana yëkkati plainte daal di koy jagleel doomu Fatoumata Ndiaye foot tampi bi di caba ndax rek affaire bu ñu ko xoolee dana ñu ëpp loxo foog ñu régler cas mu gaaw ki di caba di doom ci Fatoumata Ndiaye Fouta euh, Tampi gannaaw ba nga xamante ne nii rek mu ngay jënd jamono ji ci euh, réseaux sociaux yi di def ay euh, révélation yu doy waar ki di Mati trois pommes yëkkati na plainte daal di ko koy jagleel. ci geste bi nga xamante ni rek kii deel ñanco Sadio Mané daal dina koy def gannaaw ba nga xamante ne ni rek daal dina yëkkati xaalis bu toll ci deux cent mille dollars daal di koy jox fédération internationale de football association mu di FIFA daal koy yëkkati yëkkati rek daal di ko leen gi ngir ñu verse ko ci kees bu Liverpool gannaaw ba nga xamante ne nii rek jóge na foofu ca Liverpool xelam bàyyi de xelam ba léegi ma nga fay des ndax rek ma nga yëkkati ay lu baax rek da leen ko jagleel moom it di Sadio Mané comme na mu ko waxee woon ca entretien ya rek ne xelam jugul ci équipe bii ni Liverpool ndax rek lii rek woneeti na ko ginnaaw bi nga xamante ne rek yëkkati deux cent mille dollars daal di koy euh, jagleel équipe bi di Liverpool ngir ñu verser leen ko seen kees foofee ca Liverpool. wax ci gàmmu Ndiassane bi nga xamante ne ni rek ni ki ci samedi bi lañu ko doon amal waaye rek foofee ca gàmmu ga daal nañu fay seetlu ab délégation mu di coalition Yewwi Askan Wi gannaaw ba nga xamante ne ni rek événement bu am danañ yebal seen coalition ñu dem foofe daal di ziar di wan Sénégalais yi rek amul xaj amul senn fépp fu événement am rek te kilifa nekk fa rek danañ fa dem loole rek la coalition Yewwi Askan askan wi daal di uh, wane foofee rek ca coalition ba uh, seetlu nañu fa kii di leader bu Pastef di Ousmane Sonko uh, nekkoon na foofee ca coalition ba ngir ziar ki nga xamante ne nii rek moo di xalifa bu Ndiassane maanaam xalifa bu Ndiassane rek lañu jébal seen ziar foofee ca gàmmu Ndiassane mu nekk loo xamante ne nii rek lu am solo la comme nañu ko defee woon ci màggal gi ak yeneen événement ci euh, député député Mame Diarra Fam gannaaw ba nga xamante ni rek euh, internautes yi moo di ay followers am euh, daal di lañuy wax rek mooy député bu gën a artificiel ndax rek maquillage am na mu koy amale maanaam maquillage ba day ëpp day wane loo xamante ni rek nekku ko maquillé bi nga xamante ni rek ma nga koy maquillage jël maquillage bi daal di koy jàmb ca kanam ga ba kanam ga kenn du ko xàmmee rek la ay followers am daal di wax kii di maam jaara fam ndax rek na muy uh, puudaroo wala sax na muy makkiyewoo dafa ëpp ba tax sax ñu ne moom mooy uh, député bu gën a artificiel foofa ca assemblée nationale ndax rek maquillage mën na mu koy uh, defee day ëpp ba tax sax kenn du ko xàmmee loola tax rek followers yi daal di yëkkati kàddu yooye wax ko kii maam jaara fam ci anniversaire patron bu di uh, média di Bougane Gueye uh, Dany moom rek moo doon amal uh, anniversaire waaye rek ay employé liggéeye liggéeyee foofee rek ci di média daal di nañu koy souhaiter joyeux anniversaire sen patron bi rek di Bougane Gueye Dany ku ci mel ne kii di Mansour Diop daal dina koy souhaiter joyeux anniversaire kii di Bougane Gueye Dany nekk patron de presse bu Sen TV